asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 15 novembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu làmb lan kay doore yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk ca xëy gën caa fes moom mooy le lion de Guédiawaye ñu naan ko Balla gay numéro 2 Balla gay nag yëglikaay bi moo xëy tey samp ab laaj ci combat yi nga xam ne signé na ko muy ñeenti combat digganteem ak Bombardier Eumeu Sène booy Niang ba ci Gris doo moo tax yëglikaay bi tey xëy di laaj daal ne Balla ndax nag fi mu nekk nii la mu visé moo di cent pour cent maanaam daal gagné combat yooyu yépp daal ci la teg bët ba yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ko wax am loo xam tamit mu ngi na ko cay leeral nee na ci biir ñeenti combat yooyu Balla am na ci ñetti mbër yoo xam ne day ravance ak ñoom ndax ku ne xam ne ne bom moo Bombardier moo daanoon Bombardier wala boog Bombardier ko daanoon war koo jox revanche diggante mag Eumeu Sène Eumeu ko daanoon war koo jox revanche waaye diggante mag ki nga xam ne moo di Gris Balla daanoon giri war a jox Gris revanche kon daal combat ba ca nekk combat jànq mooy digganteem ak Boy ñang yëglikaay bi moo tey ñëw moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu moo tax yëglikaay ba jàpp na ne sax moom ak Boy Niang moom boo bëggee dégg-dégg moo ci combat soog boo xam ne soog inédit maanaam inédit la ko yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey dal di tudde bu ñu continuer ba tey ci yëglikaay bi daal beneen doomu géejawaay boo xam ne ni yëglikaay bi daal mu nga xëy tey maanaam di ko dànkaafu muy Alioune Seye numéro 2 ci combat bi mu war a jongante ak Zos yëglikaay bi dina ko day Alioune Seye 2 tey ngaa teey te itam nag nga bañ a jéem a xeeb zos ndax nag ah am na ay argument de te itam nag du mbër mu ndaw mbër mu mag la yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu di dànkaafu Alioune Seye numéro 2 ku ne xam na ne seenum combat le 28 novembre bi nga xam ne moom la ñu jëm ca la combat bay daal di doon leneen loo xam ne wala benoon déemu géejuwaay boo xam ne moom tamit yëglikaay bi xëy na tey di ko dànkaafu wala di ko xamal la ko war muy ka nga xam ne moo di Cheikh Super Jamono dimanche ji nu jëm lay bëre ka nga xam ne moo di Mamor doomu Faas yëglikaay bi na Cheikh soo bëggee dégg dëgg fi mu nekk nii gagné dong moo la jig ndax la ko yóbbee loola mooy dafa teglante ñaari yoon di perte ay combat moom Cheikh super jamono ki nga xam ne nii moom doomu waay la te démb pertul dafa gagné mooy Jackson Junior Jackson daal yëgli kaay bi ne na bu bëggee dégg dëgg daal dafa écrasé naaru sogaas ba pare dal di koy daal fay maanaam won ko boppam maa la gën a doon xale jàpp ko bëreeg moom jaay ko doole daan ko yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag bés booba combat bay am balaa ñoo suufle komba ba am na beneen combat boo xam ne combat des populaires wala soog des populaires daal la ko yëglikaay ba xëy tey tuddee mu mel ni ki nag booba combat mooy diggante Tafa Mbër ak Liss Ndiago ka décroché booba combat nag du kenn ku dul seen ma nga xam ne démb moom moo tëggoon diggante ka nga xam ne moo doon Jackson Senior ak Naaru Sogas kon daal boo bëggee dégg dëgg Tafa Mbër ak ak ki nga xam ne nii moom moo di Liss moom léegi leer na nañ combat ba nag taxaw na ñaari mbër yi ñëw nañ jëm arène nationale ñu présenté leen la nga xam ne moo di public ba maanaam ñu wane fa seen bopp leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom dëkkul géejawaay dëkkul sax ndakaaru mu nga dëkk ba Gandigal gaal naan ko Ousmane Gandigal yëglikaay bi moo xëy tey ñëw sampaab laaj ci moom nee nag maanaam moom daal Ousmane ci Gandigal lay ngem ba dugg Thiès te saa bu duggee Thiès wan waa Thiès seen boppam maanaam yëglikaay bi nag boo xoolee def na fa lu toll ci sept combat am ca quatre victoire ak lu toll ci ñetti niil maanaam daal kenn mënagu ko faa daan yëglikaay bi moo tax tey mu xëy sampab laaj ne kan mooy arrêté Ousmane Gandigal ca la nga xam ne moom la ñekke Thiès maanaam saa yu fa demee day lëmbe ba mu neex ko mu ñibbi te kenn du ko ko teree def loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmb buñ fa jógee dañuy dem ci record record xëy na tey andil ñu ko nga xam ne nii daal moom moo di tafaatin mel ni kii nag digganteem ak booy ñaa daal tafaatin mu nga xëy tey di ca wax maanaam moom tafa daal la mu xam ne na pare na te itam daal mu ngay xaar bés ba jot daal mu ñëw def la nga xam ne ni moo ko war def différence waaye ñi nga xam ne def nañ différence tamit ba ñu war leen a mooy sunu gaynde yi nga xam ne démb ñoo doon football ak réewum Congo gagné ko 2-0 mu mel ni ki nag boo bëggee dégg daal éliminatoire yooyu nga xam ne nii mooy tax nga dem ca dernier tour préliminaire wala boog dernier tour yi la yóbbu ca coupe du monde Sénégal ba mu ca duggee bu la neexee nga ne parcours sans faute la ca def ndax lépp ay ndam la benn machine il dong la ca def digganteem ak Togo kon les Lions félicitations di ko jàll seen coach Aliou ak seen. capitaine di Kalidou Koulibaly waaye du ma fàtte sama waaji ca biir muy Saliou Ciss latéral gauche boobu nga xam ne démb passe ba mu passe Ismaïla Sarr deuxième bii ba neex na lool waaye Ismaïla itam la mu dugale bii ba nooy na nepp bit ba mu àjji démb mu mel ni que looy def rek na nga ko jéem a man ndax nag làmbatu daa wuuru asalaamaaleykum chers internautes comme nañ ko daan di defee rek saa su ne dellusiwaat nañ ci seen émission le journal de la reine comme nu ma ko daal di defee rek plateau bi nag xam ngeen ne du ci wéet benn yoon dama ci ànd ak kooku nga xamante ne mooy Babacar sama jaam bi <laughs> Babacar sa buur laa nangul nga ma ko ah. parce que pël nga quoi moo tax. ah waaw c'est ça. loolu boo ko waxee da ngay daal jum xam nga ne pël yi ñooy jaamu séeréer yi loolu la yàlla dogal maa ngi lay Babacar loolu du ma la ko nangul benn yoon xam naa ne internet yi duñu seetaan aussi duñ ko nangu yow yow doon sa jaam yow kese i ah, kon macha allah lii la ñu c'est ça qu'on appelle homme galant Babacar ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ak euh, mbokk internet yi waaw di leen siyaare di ko sàkku ci ñoom képp ku ñu suivre rek ak foo mën a nekk macha allah waaye Babacar la dernière fois jot naa encouragement yi ah kontaan naa torop ci ci yi daal. waaw parce que xam nga askanu lamb lamb mooy suñu cosaan. Mhm. suñu culture nationale mooy sport national lu réew mi. Mhm. ça dire que sénégalais à travers le monde fu nekk lañ koy seetaanee. ndax mhm. boo ci. nekkee rek da ngay daal di bari soppe mhm. parce que ñi ci nekk ay borom baax lañ muy bëri yaag promoteur yaag supporter yaag amateur yaag ñu yore micro di macha allah kontaan naa trop te it euh, te it xam naa ni lamb moom dafa doon sport bu noble non c'est très noble macha allah Sénégal yëfi réew mi Sénégal lu mu am la mu noblesse wallaay wallaay macha allah su ko mm-hmm. defee euh, sans plus tarder dañuy daal di dem rek seetaan yooyu nga loolu nga xamante ne mooy yëglekaay dikkaat ci plateau bi ñu D'accord. xam nga fi ngay ñëw fii laa la wax. fii. non danga ma ne woon fii fii fii. non non ah d' accord ma ñëw fii ah. après nga ñëw fii. après ñëw fii. ñëw fii. d' accord ensuite. non non pas fii. fii ok ñu tëjee ak ñu tëjee tëjee bi journal bii nii ñu tëjee bi Fatick moo fay wax noonu quoi ok ok <coughs> su baaxee ñu dem ok mi noonu nag euh, Babacar tey mhm. euh, suñu làmb mhm. dañoo xëyee loolu nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 nee nañ Balla Gaye vise le cent pour cent daa mel ni instant bi daal Balla Gaye mi ngi am quatre combats mhm. dans les quatre combats euh, trois revanches la si am ak benn boo xamante ne c'est inédit mhm. la wax ci loolu. trois combats yi kan ak quatre combats yi c'est Balla Gaye contre B52 Eumeu Boy Niang et Gris Bordeaux. muy quatre combats. mais si biir quatre combats yi. Ah, dafa am benn boo xamante ne c'est encore inédit moom mooy moom ak euh, Boy Niang. moom Boy Niang. Mhm. waaw parce que boo xoolee li tax yëglikaay bi ñëw noonu waxal na ci biir quatre combats yi. Mhm. am na ci trois revanches effectivement parce que bon moog moog moog B52. Mhm. bëri nañu B52 gagné ko mooy Bombardier moog Eumeu Sène bëri nañu deux fois Eumeu Sène ko kon loolu ba tey revanche la moog Gris bëri nañu Balla gagné Gris boobu ba tey revanche combat yi ci biir am na soog inédit. Mhm. ça veut dire que mooy diggante ak Boy Niang. Mhm. parce que combat jàng la. xale la boo xam ne da doon reefe bëre ak Balla bi muy commencé ba yàlla dogal mu def ay preuve am ba tey Balla jox ko euh, may ko chance ñu war a bëre. ci moom Boy Niang moo tax mu nekk combat boo xam ne ci biir combat yi. Mhm. gars yi dañ koy xaar diggante Boy Niang ak Balla. yaa ngi dégg parce que yenn ñetti combat ku ne Balla bëri na ak yow mais nag yëpp neex. kon ça veut dire que moom itam li mu bëgg mooy ay revanche yi nga xam ne ñooñu nga xam ne daf ñu dañ ko daan mu ciy ñaar muy bam Bombardier ak Eumeu Sène mhm. mu fayu digganteem ak Gris na mu ko daane woon mu ñëw confirmer ko digganteem ak booy Niang tamit mu won ko ne man mhm. duma sa mag ah. ñoo maase ci làmb xam naa moo tax yëglekaay bi jàpp ne euh, Balla daal kon Euh, song boobu inédit lay doon mu diggante ak Boy Niang ci biir quatre combats. waaye Boy Niang Boy Niang moom song na song na de Balla Gaye la song nii. ah bien sûr Boy Niang mbër la. mbër la mbër la parce que Boy Niang xale la boo xam ne mhm. rahmatulah bi mu ñëwee si làmb yàggul. Mhm. mais macha allah wane na ay preuve. Mhm. bëri ak macha euh, allah Lac de Guiers ah? bëri ak Sa Thiès rakki Balla Gaye daan ah? daan Garga Mbossé. daan Guy gi. Balla pour bëri ak Tafatine astaghfirullah war a bëri ak Tafatine. Mhm. soo bëree tey boo waree a ak Balla Gaye c'est normal ah. Mhm. lamba lu leer laa la wax. ah en tout cas du ah, yomb. du yomb xale bu jar a bàyyi xel la. ku jar a bàyyi xel la daa nekk koo xam ne. Mhm. daanaanu lamba la waaye nag daanaan loo gis. xale bi ñëw day bëgg a nekk daanaan li moom. mu ngi noonu en tout cas ñu ngi koy xaar avec impatience surtout su ko defee yal nañ ko fekkee te tal ko su ko defee ñu daal di jàll euh, ci nga xamante ne kooku nga xamante ne mooy Aliou nee nañ pourquoi Aliou Alioune Seyde voilà nee nañ combat spécial du 28 novembre prochain nee nañ pourquoi Alioune Seyde ne doit pas sous-estimer Zoss. daa mel ni warul daa daa daa mel ni warul négliger kooku nga xamante ne mooy sos de ah. waaw Alioune Seye 2 moom sos bu defee loolu def erreur. Mm. parce que sos bari naa ak vainqueur yu bëri ci lamb daan na fi ñu baree bare baree bari moom Zoss. Mm-hmm. du mbër mu ndaw. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Zoss euh, xanaa ku ko xamul waaye ku ko xam da nga xam ne du mbër mu ndaw Zoss moo bàyyi jekki woon jekki ne bàyyi na lamb mu ngi ci ay business am mu ngi ci yeneen affaire benn moment. mu waat ne ñëwaat na ci lamb tey jël Alioune Seye 2 xale boo xam ne ci ndam la jógee mm. yaa ngi dégg mm. kon tey Alioune Seye li tax yëglikaay bi ne Alioune Seye 2 war tax xeeb Zoss mm-hmm. fi mu ko teg mooy expérience Zoss ndaanaan yi Zoss bëri ak tàkkusaan yi Zoss bëri mm. Zoss lépp ci lamb mën nga ne def na ko kon daf dire que Alioune Seye la am kon le 28 novembre xam naa ne bu ñu ko fekkee tal ko dinañ xool nag fan la wane du mu jëkki bëtam est-ce que Zoss toog bi mu toogoon ndax da doon liggéey ci bés boobu dina ci feeñ mm. ndax dafa toogoon nii rek mm. bés boobu dina ci feeñ Alioune Seye 2 mm. ndax li mu defoon isaapu yi est-ce que da koy confirmer ci kaw sos mm-hmm. ba tey dañuy yónnee yàgg ba bés ba rek ah du yomb daal en tout cas daa mel ni ñoom ñaar ñëpp takku nañ de mm-hmm. Mm-hmm. su ko defee ñu daal di jàll ci ko nga xamante ne mooy Cheikh Super Diamono nee nañ après deux défaites de rang Cheikh Super Diamono condamné à gagner dafa war a gagner daal par où passer waaw waaw parce que bon boo xoolee loolu parce que dafa jóge ci ñaari defet super jamono yu teglantoo kon loolu tey te mu war a bëri dimanche bi ñu jëm mhm. moom maam Mor doomu Faas mhm. loolu nag su amee li muy prouver mooy que ah li ko war mooy vraiment ndam doo nga ko jig mhm. parce que xale la nekk école de Mor Fadam te Guédiawaye ren ma gis que ni vraiment bañ ubbee saison bi ba tey seen combat yëpp ñu ngi koy gagné mu war a ñëw dimanche kon ça euh, même euh, waxuma la sax defet Guédiawaye ci boppam ren ni ma gisee ñu commencé ko arène bi mm. dafa dafa dafa neex trop ci seen côté macha allah mm. catuwu leen nag balaa supporteru Guédiawaye naan Babacar yaa bu ñu catu <laughs> mm-hmm. neex mm-hmm. kon Cheikh Super ko ci foofu mm. waaye nag nangu loolu ça c'est à revoir mm-hmm. ba booba insha allah nee nañ euh, Jackson Junior écrase écrase naaru sogas les forces étaient inégales daa mel ni Jackson a ëppoon naaru de ah waaw parce que boo seetaanee Equivox ndeysaan xool leen dem bi ñu wax dëgg yàlla mhm. naaru am na expérience su làmb mag la te moo ko ëpp na yalwaanu xale yu bari mhm. waaye xale bi nag mhm. bi ñu futtee ko ñoom ñaar xale bi ñoom ñaar da xam ne li mu yor ak bind bi nga gis ak bind bi nga gis naaru bu dee xale bi li mu yor doole la dëgg yàlla bu jàppee fi mu war a jàpp xam ni mu war a def làmb ji day jeex différence bi c'est remarquable bien sûr bien sûr parce que loolu moo feeñ ci combat tibb na euh, euh, tànku naaru mhm. naaru dóor na ko tànk xale bi rëpp def trois appuis mais benn loxo mu ko téye ca ngembu naaru mhm. daal di jóg forcé wul bi mu jógee nag mhm. ba amaat prise bu baax ci la ko jóga nag jaay doole forcé ko daan ko jëli moo lay war ne te moom moom tamit géejuwaay la jógee c'est-à-dire que kon géejuwaay daal fi mu nekk nii moom instant yi daa yëngatu de ah encouragé naaru sogaas bu baax a baax mais aussitôt di féliciter Jackson parce que xale la boo xam ne tamit comme li may wax rek euh, moom arme silencée su ma la ko mën a wax maanaam xale bu noppee doo ko gis lu bari ndeysaan muy génn ci écran yi wala naka mais saa yu ko arbitre yu ñëwee ci làmb mhm. day allah kon di ko féliciter rek te di encourager ko nga xamante ne moo nekkoon euh, adversaire am su ko defee fii daal nee nañ Tapha Mbeur mhm. Liss Ndiago choc des populations par choc des populaires <laughs> Eh, Babacar yaa ngi may arrêté ah <laughs> waaw nee nañ ma choc de populaires euh, décroché par Diey euh, Sène. waaw non eh, xam nga ñi sant Diallo ñi nag dañoo bëgg lekk. loolu nangu naa ko man nee naa leen loolu dama ko nangu. pas de souci <laughs> choc des populaires. parce que parce que ñoom ñaar. yoo xam ne wax dëgg yàlla uh-huh. bëri uh-huh. sax xaar ñu woon loolu. mi ngi noonu kon day day mujjee doon choc des populations. bien sûr mais promoteurs yi xam nga ñoom. Uh-huh, dañuy dox ci suuf. mais li jënd vraiment dëgg bi ñu ne combat bi taxaw na bu ñu ni ñaari mbëri arène nationale mhm. ñëpp a kontaan mhm. parce que ñoom ñaar ay mbër yu populaire lañ dafa mbër ku ko xam-xam ne mhm. am na xorom amateuru lamb yi bëgg nañ ko xale la man mën naa bëri doonte ñàkk na combat bëri ki dem diggante mag Ada Fass Liss Ndiago tamit nekk xale boo xam ne tey jàmm gën wax dëgg yàlla bàyyi nañ ko xel askanu làmb bàyyi nañ ko xel parce que Liss Ndiago boo koy xool dafa lay fàttali seeta ci doon drainer ci ful Liss Ndiago boo xoolee taxawaay boobu si ta amoon jàmm gën mhm. moom la ñëw aw ñu tànk yooyu xëy na fekk na fa ñu ko jiitu ci làmb mais nag yàlla moo yemalewul nit ñi mhm. ci ay wërsëg ci ay euh, waaw daal yàlla yemulewul yàlla dafa sàkk combat boo xam parce que ku ci nekk démb dégg naa la micro nga wax mhm. di ngeen dégg bu baax li ñu waxante mm. ay xam naa daal combat bu doy waar la mbaa du ku nekk euh, mi ngi sànni moromam ay xeer ñu ngay tëkkonte tëkkonte yu métti métti ah en tout cas ah, la bokk. waaw ci la bokk ci la bokk moo koy neexal. Mm-hmm. lamb ambiance la Cap Forêt la Sénégal moom lañ xam te mm-hmm. ci moom rek la ñuy dox mm-hmm. incha allah. su ko defee ñu daal di jàll ci ko nga xamante ne mooy Ousmane Gandigal à Thiès ki daal daa mel ni instant yi moom moom Thiès nee nañ am na fa sept combats si biir sept combats yi nag. am na fa quatre victoires et trois nuls. kii di Ousmane euh, Gandigal kii daal waa Thiès war nañoo jug ci moom de ah. <laughs> Kajoor ah war nañ cee war nañoo xool solution a parce que Ousmane soo gisee li ramatulaay Ousmane daa nekk mbër boo xam ne expérience bi bëri na jël avance am ñu naan la Ousmane Gandigal mag la te Ousmane nekkul mag yooyu ndeysaan yaa ngi dégg parce que mu ngi liggéey fii la newoon écurie Grand Yoff bi la nekkoon après par la suite comme moom mu ngi liggéeyee Mbour ay sali foofu lay joobe dëkk Gandigal dafa bi bimun zone mu ñibbi foofu zone am yaa ngi dégg di di bëri ji bu amee combat bëri ji ñëw na fii Dakar këpp def fi ay xale lu doy waar. Mhm. fii ci dakaar gii tey Thiès euh, saa yu ko fa joxee combat ndam la fay am. wala match bi mooy sept combat yooyu nga wax quatre victoire trois nul ça veut dire kon ah waa Thiès Ousmane sonal na leen loolu nag li ko indi du leen lu dul xëy na xale yi koy jël dañ ko dul xam. Ah. xam nga mag mu bàyyiwul boppam mhm. parce que démba mhm. eh, Balla Beye numéro un suñu papa jooju ñu koy nuyu di ko jaar wax na ma ko mhm. laaj naa ko ci sita Papa Sow xam naa dinañ seetaan vidéo bi après ci Equivox mu ne Papa Sow mag la waaye mag ak màgget bokkul noonu du bokkul bokkul du benn parce que mën ngaa nekk ndaw a ah, mag moo toppatoo sa bopp am hygiène de vie rawatina sportif boo amee hygiène de vie nga Bombardier tey mu ngi ci à l'âge de 45 ans mu ngi war a bëre mhm. Balla Gaye mhm. parce que loolu mooy hygiène de vie Ousmane Gandigal loolu la am moo tax bu duggee ci xale yi koy jël mhm. muy këpp seen yalwaan kon ça veut que sportif boo ko bëggee nekk bëgg a yëgg ci niveau bu kawe bi dëgg dëgg il fallait que hygiène de vie lal ko macha allah doomu aadama en général loolu c'est lu am solo la euh, su ko defee ñu daal jàll ci cooc kooku nga xamante ne mooy Tapha Tine Tafatine daal yónnee na fi message nee na message de Tafatine à l'endroit de Boy Niang 2 mhm. na je suis prêt ah. j'attends le jour J pour faire la différence Tafatine moo ko wax. mu ne pare na. nee na pare na. instant bi daal bis bi lay xaar. pour def def différence. ah waaw yàlla nañu ko fekk tal ko le mhm. ne bu nar a neex. Mhm. parce bu tamit Sénégal yëpp a ngi koy xaar. Tafatine jël na combat boo xam ne nii. combat bu doy lay bëree ji moom Tapha Tine xaw ma xam na ko wala déet parce que booy ñaar li may wax rek. Mhm. mbër mu doy waar la mu naqaree bëri. daa mel ni demoon na ba France pour takku ji daal. defaru ji bien sûr préparé ji na boppam ba ñibbisi. macha allah nag jamono boobu mu ngi Sénégal. Mhm. waaye combat la boo xam ne daal euh, Ramatulaay. Mhm. nañ yónni yàgg. dina doy trop. dina doy daal dina ah, allah kon euh, ñu ngi koy xaar avec euh, impatience Babacar mi ngi noonu tey daa yëgle loolu waaw di kontaan si yow di la jaajëfal de wax na vraiment bon macha allah comme ni nga ko ni nga ko wax rek rëccu ñu lañ la doon bu ñu bokkee yow plateau bi parce que. Mhm. Euh, sourire bi xam nga jàmm ji. dama bëri reetaan nag maa ah, doon leen ma ci jël bi jigéen day reet. ah bon non jigéen day ah, reet jigéen tëj kanam. ah kon allah kon bàyyi leen ma mooy sourire. reetaan bi dafa solo parce que gars yi lay seetaan <laughs> gars yi kër ñoom ñëpp apprécié ñii mm. yónnee nañu ay vocal ñi nangam sangam macha allah moo lay war ne kon dèjà mm-hmm. ah, euh, daal incha allah rabbi mm-hmm. ñu tamit lépp loo xam ne mën nañ la ko doole dinañ la ko doole pour sa liggéey gën a am yokku Mm, macha allah macha allah tamit loo ñu jox. Mm-hmm. ñu jël parce que échange mm-hmm. la quoi. échange la yaa parce que am na euh, loo kenn du si perte. Euh, bien sûr mm-hmm. loolu moo lay wan ne àddina. lépp lu mën a doon rek dañ koy bokk. mais nag ki neex a bokkal. mooy ki joxe cër. ki neex a bokkal mooy ki ki am yar. macha allah kooku yal na la yàlla sàmm. aar la aar fu ñuy seetaan. aar ñi siy liggéey ñëpp tamit amiin rahmatulaay tamit mi nga xam moom nga fi koy bëgg gis nañ bu baax li muy liggéey mhm. ci côté politique bi ak mooy Mariama waaw mhm. ñëpp di ñaan ñëpp mhm. jàmm suñu soppe yi fu ñu mën ñoom Adama Ndiaye ñoom ñëpp maa leen waa Petersen parce que ñoom tout le temps rek dinañ yëkkatay yére jox ma ko démb dama dem Petersen ñu joxaat ma yére bii ci la bokk macha allah maa ngi koy nuyu borom Petersen bu ma fàtte ma nit macha allah moom bu soobee xanaa incha allah ah, d'accord mi noonu amaat contentement bu baax a baax euh, fii la ñuy daal di yem ak yéen rek ba prochainement incha allah